أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه إلا حاجة في نفس يعقوب قضى قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبت فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي أخيه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تل قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين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 مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaam bi alayhi salaatu wassalaam kon ñu dellu si fi nga xamante ne moom lañu maanaam ba tey ci aljaami saxiix bu al imaam abu abdullah muhammad ibnu ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ginnaaw bi nga xamante ne dugg nañu ci euh, al muamalaati te ñu gisoon ci bunt bi nga xamante ne moom mooy maanaam téere boo xam ne moom la ñu wax kitaabul buyuu ginnaaw ga ñu daal di gis kitaabu salam ginnaaw gi ñu gis kitaabu shufa ñu gisoon tamit kitaabul ijaaro suñ jotaay bii weesu ñu gisoon ci kitaabul xawaala te mu am ci yenn nusxa yi nga xam te daf ciy wax kitaabul xawaalaat tey insha allahu taala dañuy dugg ci kitaabul kafaala bi nga xamante ne al imaam al buxaari raximahu llahu taala moom la nosee ci saxeexam bi kon te lépp di wër ci ay maanaam mbirum njaay ak jënd ak li nga xamante ne moom mooy li ci aju fii nga xamante ne kon foofu lañu nekk tey moom mooy kitaabul kafaala al imaam al buxaari rahimahullahu taala nose ko mu nekk fanweereelu téere ak juróom-ñeent ci saxeex bi nekk juróom-benneel ci biñ duggee ci muamalaat yi ak tey li nga xamante ne moom la ci imaam al buxaari rahimahullahu taala namm mooy leeral lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu maanaam ak gàllu maanaam nit ki daal di gàlloo loo xamante ne eh, bokkul ak li nga xam ne moom maanaam mu saxu gàllu loo xamante ne eh, dafa tegu woon ca keneen te moom la français di wax costion wala garantie maanaam kon fi nga xamante ne tey moom la ñu aju ci mbir mi maanaam moom la ñu war a waxtaane moom mooy li nga xam ne moom mooy wër-wërloo ci garantie alkafaala nag ci baatu arab bi ci boppam ci cosaan euh, dafay mën a tekki li nga xam ne moom mooy euh, mooy mooy ab damm day tekki tamit al iltizam ab damm moom mooy buñ jëlee mbir teg ko maanaam boole ko ak beneen mbir naka noonu su fekkente ne al iltizam moom mooy su fekkee mooy mbir moo xamante ne dañ koo jël mu takkoo ak mbir te loolu moom moom mooy kafaala Eh, ci baatu arab loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala dina wa kaffalaha zakariya maanaam ne yent yàlla zakariya alayhi salaatu wassalaam moom moo jël soxna Mariama alayhi salaam maanaam daal di koy indi téye ko maanaam daal di koy téyel boppam maanaam mooy mu fekk si ko maanaam nga gis ne kon daf ko jël boole ko ci moom ba pare di ko toppatoo te loolu moom mooy yatim maanaam moom mooy toppatoo li nga xam ne moom mooy jirim téye ko daal di koy adopté loolu moom mooy kon kafaala boobu nga xamante ne wala kafala boobu nga xamante ne moom la ñuy wax ci làkku arab la ñu ne maanaam naka noonu bu ñu seetloo euh, bor moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne ana wa kaafilul yatimi fil jannati hakaza man ak ki nga xamante ne moom moo jël jirim téye ko jël ko téye ko ci këram di ko toppatoo man ak moom mel ci àjjana maanaam ñoom ñaar dañoo jege wanto ñoom ñaar nii lañ mel kiif kiif maanaam dañuy dendoo naka noonu kon euh, li nga xamante ne moom mooy euh, dinañ ko gis insha ci istilaaxu borom xam-xam yi rahmatullah maanaam naka ki nga xamante ne moom mooy baatu kiflu kon da ngay gis ne bu ñu mu jëlee mbir boole beneen mbir comme li borom bi wax yuktihum yuktikum kiflayni min rahmatih maanaam mooy day jël ne daf leen di jox ñaar. cër maanaam mooy dañuy jël mbir boole ko beneen mbir ñu bool ñu fayandoo la ko mu nekk ci yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala maanaam daal kon baatu ak ak ak a ak ak qul hal adulluku qaala qaalat hal adullukum ala ahli baytin yakfuluunahu lakum maanaam li nga xam ne mooy magu yent yàlla Muusa bi alayhi alayhi alayhi wa alayha salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la demoon di wëri ji mbokk do euh, euh, maanaam rakkam ji muy wax na ak waa këram ne leen xanaa duma leen tegtal ci waa kër njaboot joo xamante ne ñoom day dinañ leen ko mën a téyal maanaam dinañ leen ko mën a jëlal yoral leen ko yaral leen ko maanaam ci gàttal daal liñ ci nam moom mooy boo fekkente ne dangaa yar nit maanaam dangaa jël dara jël ko boole ko ci say mbir ba noppi nga takkoo ak moom loolu la tuddee al kafaala maanaam ci baatu ci làkku arab li nga xamante ne nag moom mooy ci wàllu euh, sharia bu fekkente ne dañuy wax kafala li nga xamante ne moom lay tekki boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci li nga xam ne noonu lañ koy tërale waaye am na loo xamante ne masalan xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo tuddee mu dammu zimmatin ila zimmatin fil mu mutlaqa maanaam mooy damay jël mbir boole ko ak mbir maanaam damay jël maanaam dañuy jël aw loos loo xamante ne dañ koo gàddu maanaam mu nekk responsabilité ñu jël ko boole ko ak beneen xeetu ku ñu gàddu maanaam muy responsabilité beneen bu ñu gàddu ah waaye nag loolu dafa am ci lu muy aju moom mooy ci càkkutéef gi ñuy sàkku ci nit ki ci luñ joyal bi maanaa moom mooy dañuy sàkku mooy mooy dañuy jël benn responsabilité ki nga xamante ne moom mooy alkafiil maanaam mooy dammu zimmatul kafiili ila zimmatil asili fil mutalabati mutlaqan bu boobaa loolu lay tekki maanaam mooy ki ñëw taxaw ne man maa garanti kii man maa gàlloo kii lii man may cautionné kii kooku ñu jël kon responsabilité boobu ñu boole ko responsabilité cosaan bi maanaam ki nga xamante ne moom lañu war a garanti hmm. bu boobaa ñu daal di jël mbir yooyu yëpp ñu boole leen ci ak càkkutéef fil mutaalabati maanaam ci càkkutéef mutlaqan ci maanaam foofu nag li nga xamante ne moom la ñu wax foofu al mutaalabatu mutlaqan ñoom ñi ngi ci lamm mutaalabatu bi bi nafsin aw bi daynin aw bi aynin maanaam moom mooy al mutaalabatu bu fekkente ne dañoo sàkku ci bakkan maanaam moom mooy lan moom mooy waa jii de dafa am responsabilité bu teg ci kawam loolu daañ ci ñëw gën koo leeral incha allah maanaam mooy dafa am benn responsabilité boo xam ne dafa teg ci kawam responsabilité boobu nag ngir bañ mu rëcc maanaam nangu nan koo bàyyi mu dem gaa waaye bu boobaa dañ naan yow yaay taxaw daal ni man maa ko garanti dañ ko bàyyi mu dox soxlaam waaye bis bi nga xamante ne moom lañ ko soxla man dinaa ko indi ba fii mu teew bu boobaa loolu moom mooy léegi nag waa jooju su ñëwul yow say responsabilité day engagé wu maanaam loolu moom moo tax ni boole ñaari responsabilité bi ci cosaan yow amoo benn responsabilité maanaam ci cosaan Moodu amul benn responsabilité waaye fekk na sàmba maanaam ñu ne ah Samba de dafa am loo war a fay wala dafa am loo xamante ne kat moom lañ la war a àttee wala kat dafa am loo xamante ne daal xëy na maanaam fekk nañ ko fekk na maanaam Moodu fekk na sàmba par exemple commissariat wala gendarmerie ah ñu ngi naan ko ah sa waay nag yow bëggoon nañ laa bàyyee nga dem mais dañuy ragal suñ la bàyyee nga dem yow dootuñu la gisati léegi nag Moodu daal di ñëw daal ne léegi bàyyi leen ko man maa yor garantie may caution woo maanaam maa gàllu ci moom léegi bu boobaa nañ ko bàyyi mu dem. léegi bu boobaa lool moom mooy kon ci al mutaalaba mooy càkkutéef gi léegi nag ci lu nu joyal maanaam kon mu boobaa bu njëkk bi moom mooy ci nit mooy bakkan dégg nga wala boog bi day nin ci bor maanaam ah saw sàmba móodu day sàmba dafa am ku mu ameel bor waaye bor boobu nag eh, waa ji nee na ko faw da koy fay man moom munuma laa bàyyi sama bor bii du ma la ko may du ma la ko bàyyee dangaa war a fay ñu ne ah waaw kon baax na bu ko defee nag Moodu daal di ñëw daan ne yow jarul ko yóbbu police jarul ko porter plainte jarul dara di xew bàyyi ko fii bàyyi ko man bis sangam du ci la la war a fay nga ne waaw sam waa ji ko waaw mun demba maanaam samba demba la amee demba ne ko waaw samba ne ko waaw kon baax na incha allahu taala bis sangam man dinaa fexe dina dina dina dina dinaa fexe bu mu ñëw bu boobaa kooku kafala boobu maanaam mooy bi nafsin wala boog bu fayul bu boobaa man nga wooma man danaa fay maanaam bu boobaa loolu moom mooy bi day nin aw bi ay nin mooy ci jëmmi mbir maanaam moom masalan tey nit ki da war otoom daal di am euh, par exemple choc bu mu def wala boog nit ki ñu war koo aal dara ñu ne ah saa waay man de ko bu demee eh, dootuma mën a jotati ci sama oto sama matériel bi dootuma ci mën a jotati wala boo lii ma koy aal dootuma ci mën a jotati Moodu daal di ñëw ne Demba na sa xel dal ndax fépp foo xamante ne matériel ba nee na fa incha allahu taala man danaa dox ba dem ba jëli ji ko ba indilaatal la ko bu bis sàngam jotee wala ci jamonoy sàngam wala boog nit ki masalan daa leen woon am jëloon alalu jàmbur ci loo xamante ne jaaduwul ci mbir maanaam loolu mooy comme noo xamante ne jaaduwutoon da koo ëppoon doole manigancé na et cetera tribunal atte na nee nañ léegi oto bi waa ji moo ko moom maanaam ñu war koo delloo ka ko moomoon ci cosaan waaye sauf que waa ji suñ ko bàyyee nii du am lu mu ñibbee léegi nag ñu ne ko mais yow buñ la bàyyee noonu nga dem tem nga réer oto bi bu boobaa Moodu daal di ñëw taxawaat daan ne Demba na sa xel dal ndax sàmba mi oto bii nga xamante ne moom la yor man dinaa dem indil la ko incha allahu taala te dara du bopp du ko metti dinaa la ko indil yooyu moom mooy kon eh, loolu ci xanafiya yi rahmatullah alayhim loolu la ñuy wax kafaala amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama te ñoom ñooy maaliki yi ak shafii yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo xaw a jegewaantoo ci ni nga xamante ne noonu lañ koy tuddee te ñoom mooy mooy dammu zimmatin ila zimmatin fi iltizaamil xaq maanaam moom mooy dañuy boole zimma maanaam mooy gàllug loos lu gaasu loos mooy responsabilité dañ koy jël maanaam mooy responsabilité ki ñëw te mooy moodu ci suñu niral gi maanaam ñu daal di koy jël boole kook zimma beneen responsabilité bu gàllu woon ci loosu moodu sàmba bokk bu gàllu woon ci loosu samba mais ci aju gi nga xamante ne moom la àq bi aju ci moom fii nag li ko wutale ak bi nga xamante ne moom la xanaf yi wax rahmatullahi alayhim maanaam moom mooy bu fekkente ne bii la ci bor lay aju maanaam te bu boobaa loolu moom mooy eh, al kafaala ci zimma lay aju loolu moom moo tax foo dem ci biir mazhab yi rahmatullahi alayhim da ngay gis niñ koy mm, melale maam niñ koy eh, xamlee ne lii moom mooy Euh, al kafaala da ngay gis ne danay wuute ci benn téere jëm ci beneen téere waaye maanaa global bi maanaam ñoom ñëpp li leen bokk donte nag li nga xamante ne moom mooy li leer te loolu maanaam mën nañ nëf ko mënef na koo tënkee li nga xamante ne moom mooy euh, al euh, kafaala maanaam moom mooy rek su fekkente ne mooy moom mooy rek iltizaamu jaa'izi tasarrufi ma wajaba aw yajibu ala xayrihi fi xaqin fi xaqin maanaam mooy takkoo gi nga xamante ne moom la euh, kii nga xam ne dafa dagan ci mu mën a soppandiku mu takkoo jël takkoo ak loo xamante ne wala mu jëlee boppam mooy mu damm aw iltizaam maanaam mu jël dara boole ko ci boppam wala boog mu takkoo loo xamante ne dafa war ci keneen bu fekkente ne ab damaan la manam fi ni li ma tabaayee xel mom moy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñom ñaare ak damaan rek lañuy wax manam te mom moy moy garantie bob lool mom motax al kafala mom ak ak damaan ñoo nuro ben la waye nak su fekente ne ñi nga xamantene ñom ñoy euh fuqaha ñom ñoy fuqaha euh shafii yi ak xanaabila rahmatullah alayhim ñom dañoo tàqale diggante ab damaan ak alkafaala maanaam ndax ñoom dañu wax ne ab damaan maanaam moom mooy loo xamante ne dafa aju ci àqu alal waaye alkafaala mooy loo xamante ne dafa aj àqu ci àqu yaram maanaam tey bu fekkente ne alal lañuy laaj garanti boobu maanaam masalan bor bu boobaa loolu ab damaan lañ koy woowee mooy garanti yaa ma ameel nangam lépp xam ne ci alal la aju légui nak bu fekkente ne mbir mi dafa aju ci nit ku ñu wara teewal nak ne ñëwal ne dañ koy indi bu boba ñom loolu la tuddé al kafala manam nga gis nak imam al bukhari rahimahullah taala suñu gisé ni nga xamante non noonu la waxé te dañ ko gis légui insha allah taala wala bok benen yoon ci mi nga xamne non la ko waxee fii ne baabul kafaalati fil qard wa duyun bil abdan wa ghayriha manam fi nga xamante dafa wax ne al kafala manam gàllu gog nga xamne mom lañuy la gàlloo ci bor maanaam ci bor muy crédit wadduyuuni ak lu ñu leboon dégg nga ci bil abdaani ci yaram yi wa gayriha ak leneen te moom mooy alal yi maanaam da ngay gis ne moom baatu kafaala daf ko jël maanaam boole ko te comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci mazhabu xanafiya yi rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy mazhabu maaliki yi rahmatullahi alayhim soo seetloo ñoom baatu ak damaan la ñuy jëfandikoo manam ñaare ci cimetière yi néewaan na nga gis ci baatu kafaala manam baat bi nga ciy faral di gis moom mooy baatu ab domaan waaye ab domaan ak alkafaala yëpp benn la sauf que ñoom dañuy wax ne ñaari baat domaan ñoo am mooy ab domaanu bil badan wa wala boog bil wajhi ak ab domaanu bil maali maanaam moom mooy garanti boo xamante ne ci jëmm la aju mooy al wajhi maanaam ak garanti bi nga xamante ne dafa aju ci yaram ci ci ci alal manam nako nonu tamit al kafala ñaari xet yoy ñom ñoo ci nekk manam dal ci teunk ñi nga xamantene ñom ñoy ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañoo tektale diggante ab bamaan ak al kafala bu fekkente dañoo wax ab bamaan foo diggé ñom ñu wax ko mom moy alal jo xam moy ci alal la su fekkente ne al li nga xam ne moom mooy al al al kafala maanaam ñoom suñ ko waxee moom mooy day aju ci ñu teewal ak maanaam ak ak jëmm kon euh, lenn maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo dox seen diggante euh, li nga xamante ne tamit moom mooy kon alkafala dafa am ay mbir yu bari yoo xamante ne ñoom ñoo ci aju masala bi nga xamante ne moom mooy bi jëkk bi nga xam ne moom lañ ciy gis moom mooy yoon bi nga xamante ne moom lañ ko yoonal maanaam ndax dafa dagan lan mooy atteem bu boobaa li nga xamante ne moom la ñuy wax moom mooy boroom xam-xam yu rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci dagan gi mu dagan ak yoonal gi nga xamante ne moom lañ ko yoonal maanaam moom mooy alkafaala maanaam moom mooy ma ñëw garanti léegi fii nag bu ñu waxee alkafaala fii léeg-léeg dinañ préciser que ci yaram bi la ñuy wax léeg-léeg dinañ préciser que ci alal ji la ñuy wax waaye ci globe maanaam globalement rek maanaam suñ koy tudd dañuy xam ne ñoom ñëpp lépp lañ ci nammandoo maanaam loolu nag Euh, lu mat a bàyyi xel la ngir ne loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wutal ko ay tur yu wuute waaye loolu daañu ci ñëw maanaam comme ni nga xamante ne dagan gi nga xamante ne moom la dagan loolu mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci waaye nag ki nga xamante ne moom moo war a indi garantie maanaam moom mooy garantie nga xamante ne danaan diw Moodu mi ñëw daan ne Samba daan ne Demba yow comme Samba dalaa yoreel bor léegi nag bàyyi ko incha allah. heure sàngam man euh, moom bu fayul man danaa fay wala boog comme ni nga xamante ne noonu lay amee caution wala garantie ci logement yi maanaam nit ki day jël maanaam Moodu wala boog Demba dafa yor logement am di ko Samba waaye xool na ne Samba ak am-amam dalul xelum xelam moom dalul xelam léegi nag Moodu mooy ñëw daan ne euh, waa léegi man danaa la jox ay garantie ci ne yow Samba ki euh, Demba saa yoo xamante ne Samba am na. problème fay logement am man mi dina ko fay bu boba lolu bu boba lolu mom al kafala bil mal la manam te lolu mom la xanaa xanaa bi lay ak shafi rahmatullah alayhi di wax ab moy garantie euh waye su fekente ne ab damaanu bi nafs la te mom moy al kafala mom lañu ko wax ñom bu boba li nga xamne moy di jëm ji bu boba euh limi limi limi def manam Samba mën na ne ah. man nak limu man moy bu heure fay joté té gisoo Demba té gisoo té Samba yow Demba man dina la indil Samba bu bu mu su indé Samba rek doyna manam mom moom de am wala voilà mu ñu wala bok euh, gendarmerie ne ñun wala bok juge bi ne man de bëggon na dama bëggon na def mandat de dépôt euh, euh Samba euh, waye comme yow Modou né nga yow di nga ko garanti kon heure àtte jour àtte jur jour sangam la. na indi maanaam nga indi ko bu boobaa yow da ngay am responsabilité dem indi ji sàmba ne ñu ñëwal naka noonu wala boog mu am benn accident maanaam muudu ne moom daal otoom yàq nañ ko te sàmba ngi nii di dem non dem ba plutôt daan otoom yàq nañ ko te sàmba mi ngi noonu di dem léegi nag moom du bàyyee noonu mu sedd soit daf ko yóbbu police soit mu fay ko léegi sàmba ne ko man nag wax euh, dem ba plutôt ne ko man na ko wax dëgg yàlla euh, wala sàmm waaw ne ko man na ko wax dëgg yàlla jamono jii awma lu ma la fayee waaye buñ demee bi sàngam wala jamono sàngam man dinaa la fay bu boobaa mu ne ko noo kon garawul léegi yow moom sama sama yar sa maanaam sama xel dalul ci sa mbir Moodu nag daal di ñëw daan ne waa léegi man maa garanti loolu bu fekkente ne moo ko garanti bu heure fay jotee moom bu indee sàmba ci kanamu Moodu ci kanamu Demba ne ko Samba Demba Demba Samba ngi jeex moom jaanam wàcc na maanaam amatul leneen luñ koy toppee waaye su ne ko euh, de Samba a ah, maanaam bis boobu nag gisuñu Samba Moodu a ah, waaw Moodu ana Samba naa man de gisuma Samba waaw ah comme gisoo Samba nag léegi yow yaa may fay maanaam bu boobaa noonu lay demee comme gisul Samba moom mooy fay voilà léegi. kon mbir mi non lay lol non lay demé manam lol mom moy al kafala euh borom bi subhanahu wa taala nak euh bo gisé daf ko yonal waye ngir ay manam am na ay yu bari koy tektale bokk na ci ay yi nga xamantene ñom ñokoy tektale moy ay bi nga xamantene mom mo nek ci sóoratu yusuf bi yent yàlla Yaquba alayhi salatu wassalam waxee ne qaala lan ursilahu maakum xatta tu'tuuni mawsiqan min allahi la ta'tunnanii bihi illaa an yuxaata bikum mu ne man de duma leen ko lu dul maanaam mooy Benyamin muy doom muy alayhi salaam muy rakku yent yàlla Yuusuf ni alayhi salaam maanaam xatta tu'tuuni mawsiqan min allahi ludul ngeen indil ma kóllëre ak ci bu tukkee ci buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ngeen fasanteeg man kóllëre ne da ngeen di ko indiwaat voilà xanaa mu am lenn rek loo xam ne moo leen gàllankoor waaye su dul rek maanaam da ngeen ma ko indiwaatal te loolu nag maanaam moom mooy tegtale ne kon loolu moom mooy alkafil maanaam moom mooy ki garanti parce que ki nga xamante ne moom moo doxole noonu kooku dafa garanti euh, te beneen aaya bi nga xamante ne moom moo koy tegtale mooy li nga xam ne moom la euh, kii fa mu mu'azzinun mooy wootekat boobu la mu woote te ba mu waxee ba pare def ni suwaaul euh, maliki maanaam mooy euh, buur bi li muy kubam boobu nga xam ne moom lay tibbee mu ne dafa réer mu ne waaye wali man jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im waaye képp koo xamante ne indi na ko maanaam daañ ko feesalal aw njëggam maanaam moom mooy euh, gëlleemam daañ ko ko feesalalal ah, dégg nga ci ay ravitaillement té man wa ana bihi zaim man may ki nga xamantene man ma garanti lolu te bokna ci li nga xamantene tamit mom moo koy tegtale ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy hadithu abu umamah al bahili radiyallahu taala anhu bi nga xam ne nek ci sunan imam abu dawud ak tirmidhi rahmatullahi alayhima mun sami'tu an nabiyya صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدات والمنحة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم من العاري موي لونو ابالي دنجكو ورا ديلو موي اب ديلو لا سانت تي يرله دنجكو ورا تاميت مانو اب دنجكو جوخه يل يرله دنجكو ديلو مانام موي tey masalan ma jox la samam xar ne la euh, maanaam mën nga cee ratt wala boog mën na laa sam xar maanaam ma ma ma jox la njariñ bi quoi maanaam la mën ngaa jariñoo mbir mi après euh, nga delloo ma ko maanaam loolu delloo la tudd wat day nu yun bor dañ koy fay maanaam bor fay la sant mu ne wa zaim ki nga xamante ne tamit moom moo ñëw ne man maa yor ay resp garanti ma yor ay responsable maa gàlloo mbir mi kooku mbir mi day tegu ci kawam maanaam maanaam bor lay doon bu tegu ci kawam maanaam faw bu fekkente ne keneen ki fayu moom mooy fay maanaam kon loolu euh, mooy li nga xamante ne euh, loolu day day da koy tegtale maanaam ak yeneen ak yeneen comme ni nga xamante ne incha allahu taala noonu lañ ko gisee ci xadis na abu qatada bi radiallahu anhu te ñu gisoon ko ci suñu jotaay bi weesu ci xadisu sayidna salamat ibn al akwa radiallahu taala anhu maanaam muy Seydina Abu Qatada radiyallahu taala anhu li nga xamante ne noonu ak yeneen xadis yi nga xam ne moom la ñu war a gis incha allahu taala maanaam noonu la fayee bor maanaam noonu la gàlloo loo fukk fay bor maanaam kon da gis ne loolu day wane ne euh, lu dagan la te it euh, am na euh, xadis bi nga xamante ne moom la imam alxaakim solo rahimahullahu taala mooy ne taxammala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an rajulin ashrata dananir maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam yanul na ab waay fukki diinaar maanaam ne moom moo ko garanti te moo tax julit ñëpp daganal nañ maanaam dëppoo nañ ci dagan gi nga xamante ne moom la dagan ngir ni nit ñi dañ koo soxlawoo te it dafay jañ ak lor ci ki nga xamante ne moom moo amee bor wala ñu am luñ koy toppee comme ni nga xamante ne euh, nii bu ñu xoolee deug dëgg dañuy gis ne sharia dafa lambo ci lepp loo xamantene day indil yombal ci julit ñi te da fay nek lo xamantene dimbal daf ci aju ndax dimbalante digeunte jaam yi comme al abdu fi awn al abdu fi allah wala boog inna allah fi auni abdihi ma ka ma dama al abdu fi awni axihi buur yàlla subhanahu wa taala day dimbali jaamam fi jaam mi ngi ci dimbal mbokk jaamam manam mbokam te léeg-léeg nit ki mën naa jënd marchandise boo xamante ne dafa daf koy aajowoo wala boog mu soxlaa lépp dara te ki mi ki muy ki koy jaay moom wóoluwu ko wala yeneen ak yeneen bu boobaa euh, ke mu am ku ñëw daal di koy jàppale daal ni waa garawul man maa ko garanti ak yu mel noonu léeg-léeg it maanaam ci ñenn ñi nga xamante ne dañuy soxla masalan ak tukki wala boog ñu war a am ay yu ñuy yu ñuy ut ak këyit yu ñuy toppatoo ak yeneen ak yeneen mu am koo xamante ne moom mooy bind ne may def prise en charge bi wala boog man may def garantie bi maanaam ni kii duñ ko bàyyi muy tumuranke saa yoo xamante ne nar laa tumuranke man nii maa koy yenu maa koy jël ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp ci xeetu euh, ndimbal la euh, te loolu faw day soxla ko garantie te garantie boobu yoonal gi ñu ko yoonal bokk na ci xikma yi ci nekk itam mom moy le fait que nit ki nga xamantene mom moy bàyyi alalam di dem kooku tamit manam xelam meuna dal mom itam te lolu nak bu boba dañuy gis mbir yi woute gi mu woute comme ni nga xamne non lañ ko waxe léegi ci ab damaanu ak al kafala manam dafa am ay woute ndax ab damaan dañ ko wax ab ak tamit al kafala ak al khamala ak zaama ak al qabala ak sabara ñom ñi bo xolé ay manala yo xamantene ñom ben lan maanaam ñoo bokk li ñuy tekki te bu boobaa moom mooy ci takkoo dara maanaam nangoo gàlloo dara ngir garanti loolu kese la mooy caution garant léegi nag euh, ñi nga xamante ne moom moom la imam al-Mawardi ash-Shafi'i rahimahullahu taala moom mi ngi leeral ci ne nit ñi de ci seen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy faral di wax ne maanaam bu ñu jëfandikoo ak damaana maanaam mooy ak damin moom mooy ci alal yi maanaam al ad damiru mustaamalun fil amwaali maanaam ci alal lañ koy faral di jëfandikoo ah, bu fekkente ne alxamaala maanaam mooy ki nga xam ne moom mooy gàllu dara yanu dara maanaam maa ko yanu maa ko gàllu loolu ci ak diyaat lañ koy wax mooy eh, wala voilà maanaam moom mooy eh, diya mooy mooy mooy mooy mooy mooy bu fekkente ne eh, dafa am ay ndàmpaay yu ñu war a joxe moom mooy nit ki dafa am lu mu def ñu mu war a Euh, am lu mu joxe wala ah maanaam euh, muy contravention yi wala boog PV yi wala xeet yu mel noonu mais yu mag yi ko yooyu yu mag lay doon maanaam loolu la ñuy tuddee alxamaala maanaam comme masalan euh, nit ki kat xëy na dafa juum dagg na loxob jàmbur wala yu noonu ñu ne ko nga war a joxe nit ki koy garanti garanti ko loolu maanaam moom la ñuy wax alxamaala léegi bu fekkee nag azzaama la te moom mooy comme ki wax zaim maanaam bu boobaa moom mooy ci al zaim mu ne wa zaimu fil amwalil izam ci alal yu mag yi lañ koy defee mu ne nag wal kafilu fil nufus maanaam alal yu mag yi maanaam moom mooy comme euh, entreprise yu ngand yi alal yu bëri yi nga xam te ne garantie yu rëy yi kooku voilà kooku zaim la ñuy wax voilà zaama wala léegi al kafil mooy ki nga xamante ne moom mooy garant bi caution bi tamit ci bu fekkente ne ci fil nufus maanaam ci bakkan yi maanaam ne damay indi diwu teg ko maanaam diw de man danaa fexe ba mu teew ba mu fekkee loolu moom loolu la ñuy tuddee loolu alkafaala loolu mooy comme alkafil maanaam ci loolu lay aju kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo leen euh, tekkale te comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi moom mooy alkafaala ñaari xeeti kafaala ñoo am mooy alkafaalatu bi nafs ak alkafaalatu bi dayni maanaam Euh, am na tamit ñetteel waaye boobu dañ koy dugal ba tey ci alkafaalatu bi dayn mooy alkafaalatu bil ayni boobu dafa jege alkafaalatu bi dayni am na beneen ñeenteel boo xam ne dafa jege alkafaalatu bi nafsi moom mooy alkafaalatu mooy bi talabi maanaam mooy addama addamaanu bi talabi maanaam bil ayni yaakaar naa waxoon nañ ko léegi moom mooy jëmm ji maanaam moom mooy alal ji xam nga bu dee bor bi xam nañ ni lii bor nga amee waaye léeg-léeg doo amee bor jëmmim alal ji ci boppam ngay amee maanaam comme oto bi nga xam ne bàyyi nañ ko mu dem sànq ci exemple bi ñu joxe woon wala boog ki nga xamante ne xëy na dafa luwe woon benn kër euh, xam naa rek mu sàggan am ay kër gi lu ci yàqu borom kër gi ne nañ koo defar léegi nag bis sàngam laa leen may ko mu am ku garanti ne mais comme du duggul mu sañ maanaam wóoluwul locataire bi pour mu bàyyi ko mu dem mais euh, kenn ñëw ne garaawul man maa ko garanti incha allah. Euh, dinañ ko defar bis sàngam di nga ñëw fekk sa alal defaru su ko defee su ko gana su ko bi defarul manam yow yaa koy war a defar yaa koy fay wala yaay fay réparation yi maanaam ak yu mel noonu loolu al aynu la maanaam wala boog yu mel noonu daal mooy lépp loo xamante ne dafa aju ci jëmmi mbir mi ci boppam léegi nag mu am euh, al al kafaalatu mooy lan moom mooy mooy ab damaanu bi talab moom mooy yow garanti wuloo ne di nga teewal nit ki mais garanti nga ne di nga wër nit ki maanaam yow di nga wër nit ki maanaam amatu amatoo obligation de résultat mais obligation de euh, de moyen ngay am maanaam ne yow garanti nga daal ne di nga dem wëri ji nit ki ba indi ko waaye amul benn garanti boo joxe ci ne di ko euh, dina di di di nga ko libéré ko dina dina euh, dina waa ji dina dina fi ne léegi nag mu am lu ñu tuddee ay alkafaala moom ay arkaan moom am ay ponk maanaam ponk kafaala comme xanafi yi ñoom rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne benn ponk kese la am moom mooy al ijaab wal qabul te moom mooy as-siga maanaam moom mooy tëgginu baat bi nan la ñu tëggee contrat bi loolu rek ci am solo te bu boobaa moom mooy wax maanaam nangu na te looloo tax ñoom al ijaab rek doyul al qabul foog mu am maanaam mooy kii garanti daal ne man maa garanti nangam kii ñuy garanti kii ki kii nangu garant bi maanaam ki nga xamante ne kooku moom mooy sàkku mbir mi ci boppam mooy almakfuulu lahu euh, moom almakfuulu lahu mooy ki ñuy garantir daan ne man mi ok d'accord na d'accord na parce que moom su d'accord maanaam wax jooju foog mu am loolu nag Hanafi yi rahmatullahi moo tax ñoom boobu boobu pompe rek la am moom mooy te boo seetloo loolu saa yu amee da gis ne yeneen yi dañuy dugg ci biir loolu moom moo tax Hanafi yi rahmatullahi jàpp ne benn ponk rek la alayhim ñoom dañoo jàpp ne juróomi ponk la am te moom mooy maaliki yi ak shafii yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ponk bu njëkk bi moom la ñu tuddee alkafil maanaam mooy ki nga xamante ne moom mooy dañ ko wax maanaam mooy ki nga xam ne mooy ñëw indi garantie maanaam mooy ci suñu exemple yi ñu doon muy muudu muudu moom kooku kooku ponk bu mag la ci ci mbir mi mooy sax ponk bu njëkk bi ndax kooku muudu su existé wul Euh, Samba ak Demba seen mbir garanti du ci dugg euh, ñaareelu euh, ponk bi moom mooy al maqfuulu lahu te moom mooy ki nga xamante ne moom mooy borom àq gi moom mooy ci sàkku mbir mi kooku nag moom mooy ci suñu niral yi ñu doon joxe ci suñu exemple yi ñu doon joxe kooku mooy Demba léegi mu am al maqfuulu ki nga xamante ne moom la ñuy sàkkul maanaam moom la garanti te dañ koy wax tamit al asil mooy cosaan bi mooy ki nga xamante ne moom lañ waroon a topp ci cosaan kooku moom la ñuy wax al asil dañ koy wax al makfulu anhu dañ koy wax tamit al madmunu anhu maanaam mooy ki ñuy garanti mu am ki nga xamante ne moom mooy al mak mooy li nga xam ne moom mooy al bi bihi mooy ñeenteelu poñ bi mooy ñeenteelu euh, ponk bi moy al makfuulu bihi moom moy kan moy lan moy alal di ci bopam li nga xamantene mom mom lañu la voilà mo xam ci alal la bu boba moy al makfuulu bihi manam alal di nga xamantene motax ñuy top ci wala bok bu dee leneen la du alal mais par exemple ben jëm bir la wala bok ab atte la wala euh, lool moy al makfuulu bihi moy tey comme par exemple mën na baña nek alal comme niñ ko joxee ci niréelu jugement bi nit ki police qui un euh, tribunal néna daf ko bëgg def mandat de dépôt da koy dugal ci kasso bi en attendant jour jugement bi ñëw bon dans six mois dans deux ans dans et cetera mais mu ne non xaar leen dama koy def euh, contrôle judiciaire parce que manam contrôle bo maanaam dañ koy atté ci anam koo xamante tay manam maanaam keneen mën na ñëw ne non monsieur le juge bul ko dugal kasso parce que woo kiiwul loolu du baax ci mom njabotam nangam et cetera mais man dina la garantir ne jour procès bi man dinaa ko indi maanaam euh, kon da ngay gis ne jëmmi li nekk li ñuy garanti maanaam moom mooy procès bi ci boppam lañ garanti bu boobaa garanti wuñu nit maanaam al makfuulu bi du alal mais ab procès la quoi maanaam mooy le fait que maanaam teewaayu tribunal jëmmi teewaayu tribunal ak acte bi mën a taxaw di am ci condition yu baax loolu mooy al makfuulu bi léegi juróomeelu ponk bi nag moom mooy as-siiga as-siiga moom mooy al ijaabu wal xabul mooy al euh, ijab moom mooy sàkku gi ñuy sàkku ci dara ne ko nangam day day am kooku daal nangu ne waaw nangam googu d'accord na ci maanaam loolu moom mooy tëggin bi mooy formule ni ñuy formuler contrat bi maanaam lool moom mooy as-siqa maanaam formulation wu contrat bi léegi nag euh, nga xam ne moom la ñu war a xam te loolu lu mat a bàyyi xel la balaa ñuy continuer parce que benn bu ci nekk ci yii dinañ ko leeral mais balaa ñu ciy continuer il faut que mu am benn mbir bu mat a bàyyi xel moom mooy alkafaala ak ak damaan ak ar rahna ñoom la ñuy tuddee al al uqudu tawsiqiya maanaam al uqudu tawsiqiya la maanaam moom mooy lan mooy ay rahn moom mooy mooy mooy euh, euh, tayle mooy tayle d'accord euh, ak li nga xamante ne moom mooy garantie ci alal ak garantie ci nit bu dee teqale nañ diggante ak damaan ak alkafaala maanaam ñett yi ñoom ay acte lañ yoo xamante ne ay acte yu kóllëre lañ c'est-à-dire que contrat wu pacte la yoo xamante ne dañuy dëgëral rek maanaam beneen beneen beneen acte bu nar a am maanaam beneen mbir beneen contrat bu fi nekk la ba pare am beneen contrat bu ñëw ngir dëgëral contrat bi maanaam loolu la mais moom ñoom en soi mënuñu indépendant ci beneen contrat maanaam ñoom mënuñu indépendant ci beneen contrat ci kaw maanaam surtout ak damaan ak al euh, ak euh, al al kafaala maanaam mooy garantie yi bon ak alxamaala zaam yooyu yëpp ñuy wax maanaam euh, parce que li ma fàtte wax foofu moom mooy xam ngeen ni kenn ku ci nekk dafa am lu luñ luñ koy woowee maanaam waxoon nañ ne ak damin mooy ki nga xamante ne moom ci alal yi la mbir yi alkafil mooy ki nga xamante ne ci bakkan yi la aju alxamil mooy ki nga xamante ne moom dafa ñëw garanti ci diye yi mooy euh, yenn indemnité yenn yenn impôt kii euh, fàtte naa tur bi ci mais en tout cas yi nga xam ne ay PV la quoi ay ay contravention la yoo xam ne dañ koo teg ni ay ay ay punition maanaam yu ñu teg ci nit ki pour mu war koo fay la euh, at azzaim ñu koy jëfandikoo ci alal yu mag yi loolu leeral nañ ko mais al alxabir ak asabir ñoom ñaar dañ leen di jëfandikoo pour lépp maanaam léeg-léeg ñu wax alxabir wala alsabir maanaam fekk ci lépp la ñuy la ñuy wax loolu tamit beneen mbir la bu mata bàyyi xel léegi nag bu ñu ñëwee ci charte yi nga xamante ne moom maanaam maanaam fii fii laataa ñuy leeral charte yi beneen mbir bi nga xamante ne moom moo mat a leeral fii mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim suñuy jëfandikoo yii di ko leeral di ko wax dafa am loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la ci biir notion yooyu moom mooy ne ñoom suñu suñu suñuy wax yi Euh, Madame, il faut que nous comprendre que ni manam euh, nii nit ki daf koy def ngir ngir yalla du nit ki def ko ba pare di ci ci surtout par exemple ay caution garantie et cetera yi am suñu jamono manam dafa am garantie caution ci ay anam yu incha allah parce que tamit at yi nga xamante ne moom la ñuy wax nga xam ne jamono yu njëkk lañ ko daan gën a soxla bon ba léegi nii dinañ ko soxla mais ci dëkk àll yeeg xeet yooyu noonu bon wala ci mm, euh, nañ ci ay yenn mbir sax yoo xamante ne xëy na suñ jamono ji dañ koy soxla ci biir nit ñi bu ñuy dund nii mais daf ci am yoo xamante ne tey maanaam day par exemple banque yi dañ lay mën a garanti la rek ñu a la lettre de crédit de crédit wala euh, de de de euh, d'accréditation wala ay yeneen mbir lettre yoo xamante ne a être que dafa am euh, wala bok ak garantie bo xamantene dañ koy génne mu nekk benn ñu garantie sa ay marchandise mu bon pour mu mën a transiter ak yeneen ak yeneen wala bok tout simplement euh, nit ki ne voilà euh, comme comme maa ko apply mooy comme américain yi nit ñi def nga xamantene nit ki buy nekk citizen maanaam buy jël nationalité américaine bi il faut que mu am kenn ci américain yi koo xam ne moo koy garantie ak xeet yu mel noonu yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu xaw la maanaam bu ñu jël xool mbir comme étant que affaire bi de façon euh, peut-être que mën na bañ am ankay ah, njariñ déedéet ankay ah, njariñ bi bari na ba dafa forme yu bari yu mu jël ci yu voilà mais incha taala xëy na luñ ci teewlu ci suñu jamono ji ak naka lay tege dinañ ci taxawaat Euh, kon jaamu yàlla lañ ko mën a def maanaam maa daama ne dafa yem ci limitation bii nga xam ne moom lañ wax et que nit ki garantie bi rek lay def fa ngeen tax loolu daan ci ñëwaat mais ñu ñu leeral ko bala ñuy continuer parce que dañ koy soxla ta tout le temps wala dinañ ko soxla ci masala yu bëri mooy tey su fekkente ne damaa garantie kenn ci alal la euh, maanaam ma garantie ko ba pare fayeeku ko ci maanaam mbir moom day mel ni comme Euh, dafa am bor non seulement man ma fayeeku ko ci kaw boram ngir yanu bor bi maanaam loolu lay nuroon maanaam mooy lan mooy dama dem euh, euh, maanaam par exemple ba moom moo ameel Demba par exemple trois millions de francs CFA man ma ñëw ne Demba na xel dal na xel dal parce que man maa garanti bis sàngam kañ nga soxla sa xaalis mu ne ko man kay nee ko au plus su ko indiwul dans cinq jours man danaa ko danaa ko yóbbu police daa ko porter plainte euh, Moodu ne ko non non na sa daal dans cinq jours incha allah wala boog may ko dix jours man dinaa ko fay bu fekkente ne moom fayul voilà wala boog man dinaa ko indi fii mu fay la man danaa ko indi ba fii bu booba mooy al kafaala bil badan bin nafs maanaam mooy mooy ne yaram yaram bi bu fekkente ne dama ne alal ji la mooy al kafaaratu bi day bi maanaam mooy alal ji dina ko indi léegi nag bu boobaa garantie boobu moo ko garantie su fekkente ne samba maanaam muur moo ko garantie samba samba ba pare ne ko ah mais nag garantie bi pour ma def ko da may fay par exemple euh, da nga may fay quinze mille francs loolu day xaraam lu tax muy xaraam moom mooy tey imaginer su muuru su su su samba fayul donc trois millions yi Samba Moodu da koy jox Demba Moodu dana ko jox Demba léegi nag bu boobaa Moodu day wëlbati dem ci Samba ne ko sama trois millions yi delloo ma jox ma ko bu boobaa bor bi day des diggante Moodu ak Samba bu boobaa Demba moom day libéré wu ndax moom jël na boram bor bi day tos jugee ci sàmba ci ci ci ci ci comme dafa jugee woon ci Samba ñëw ci Moodu après Moodu ak dañuy des de maanaam. ci ci biir contrat bi Samba yoreel Moodu léegi nag fekkente ne Samba dafa yoreel Moodu trois millions ba pare war a ba pare Moodu war a bénéficier wu ci quinze mille francs ci biir boru trois millions yooyu maanaam loolu mooy jëmmi riba maanaam loolu jëmmi riba kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba bépp leble boo xamante ne dafay indi bor kooku riba moo tax garantie borom xam-xam rahmatullah nañ ci ne maanaam Euh, contrat la boo xamante ne jaamu yàlla kese lañ koy doye voilà maanaam min uhudu ta ahdu taqarrub taqarrub la maanaam voilà maanaam njir jege yàlla rek lañ koy doye kenn doyewu maanaam kenn du ko def njir di ut ay intérêt ci nit ki loolu lu la beneen bi ci des tamit moom ki koy def euh, kon euh, te moom mooy alkafil kon mooy ponk bu njëkk bi kooku daa war a nekk ne moom dafa am possibilité wu ñu mën koo moom dafa am conditions yu nekk yu war a nekk ci moom mooy bu njëkk bi moom mooy dafa war a nekk koo xamante ne daa war a am alal alal bu ko bu doy bu mën bu mu ko mën a def maanaam tey su fekkente ne nit ki amul alal maanaam mu nekk koo xam ne dafa ndóol ay nelawam doyul maanaam kooku mënta nekk garant sinon bu nekkee garant tamit day indil boppam ay problème maanaam loolu moom moo tax boobaa day day day day du ci am rek tuyaaba maanaam parce que dafa tegoo loo xamante ne dañ ko koo parce que day indilaat boppam yeneen problème yo xam ne ñoo gën a màgg euh, cependant su ko defee te yàlla rek tax daf ciy am tuyaaba su ko defee te yàlla taxu maanaam euh, ngir puuk réew mo tax wala leneen te donte mën na ko du ci am dara wala boog su ko defee ngir xeetu. Euh, parparloo wala yu mel noonu loolu itam du ci am dara maanam li la yàlla li ku yàlla fayee moom mooy daf ko def te yàlla tax mu bokk ci condition yi nga xamante ne moom lay lay amee moom nekk koo xamante ne aaqil la moo tax ñu tuddee ko jaa'izu tasarruf maanaam fokk mu koo xam ne day day mën a soppandiku ci mbir mi kii soppandiku ci mbir mi ki dagan mu maanaam ki mu mën a mu am possibilité di di di di manipuler alalam di ko mën a utiliser mu ko neexee mooy dafa war a nekk koo xam ne dafa am xel lool ba pare ñaareel mooy aqil lay doon mooy al aqil ñaareel moom mooy al buluux maanaam maanaam si qui veut dire que ni kon dof euh, wala ku koo xamante ne euh, ku kiiwul la ku xelam ñorul la maanaam ko kenn du ko wala koo xam ne maxjuur la dañ koo tëj dañ koo denc dañ maanaam mooy dañ ko dañ ko mettre mettre sous curatelle mooy koo xam ne dañ ne ko yow sa alal yow amoo droit di ko utiliser ndax sinon da koy yàq bu ñu tee ci moom ci kawam juge bi àtte ne yow kat sa alal di nga amal sa bopp sax kenn du la bàyyi nga di ko jëfandikoo sa bopp parce que danger nga ci sa alal maanaam mën ngaa yor ay millions léegi daat koy taal ci ci maali foro voilà wala nga dem jëndee ko lépp cigarette teg da daa di koy dajale wala nga yor ay millions dem yóbbu ko ndawtale ji ko wala euh, dugal ko ci am xew léegi léegi léegi léegi suba doo am loo ndekkee yow moom dañ sa alal dañ koy jël dénk keneen maanaam yow buñ la bàyyee alal ji bi noonu lay war a àtte ci ku mel noonu moo tax euh, bëri na ñoo xamante ne surtout ci dégg nga euh, suñu jigéen ñi ah ñoo xamante ne dañ leen a war a mettre sous curatelle rapidement parce que suñ ko deful problème la leen di jural mooy da ngay dañuy am benn alal léegi am xew ñëw ñu jël alal yëpp dugal ko xew ma toog na euh, kooku par exemple moom mënta nekk garant d'ailleurs moo tax fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ne même jigéen ji nga xamante ne dafa yor alal sax maanaam ci jëkkëram maanaam bu bu xësee ba weesu ñett ñett maanaam un tiers un tiers alal ji ci gaaraamu maanaam li muy garanti su xësee ba ba mat un tiers alal ji dootuñu ko bàyyeeti xel maanaam jëkkër ji day am droit de regard ci mbir mi wala jëkkër ji day am droit de regard ci mbir mi ndax dañuy wéyal àtte bi waaw wala déet naka noonu euh, mais mais wax jooju boroom xam-xam yeneen yi àndul ci xëy na mais dinaa leen expliquer lu tax en fait il ñu comprendre que ni léeg mu am yenn ci mazhab yi mën na daal mën na nekk ci mazhab bu ne nag ñu àttewoo benn mbir maanaam dañ koy teg ci loo xam ne dafa xew ci jamono xam ngeen ni jamono yu njëkk ya jigéen daa nu ñu sax maanaam génn seen kër yi daanuñu xam dara ci biti wala ñenn ñi nga xamante ne seen xëy na daan nañ dem wuti seen alal ak yooyu noonu maanaam dafa am ci milieu bu restreint boo xamante ne ci la ñuy tënku donc ce qui veut dire que ni am benn ouverture ci liy xew ci adduna bi ak ci naka la nit ñi di naxaatee ak yenn yenn yi ñu am sax maanaam benn duñ mës a dugganteeg góor ñi par exemple ci dara duñ mës a dugganteeg milieu yu bëree bëri duñ ci duñ duñ ko xam souvent sax dañuy faral di nekk euh, euh, ci comme zaatal xëdri lañ leen daan woowee sax mooy boroom. boroom ruq benn ruq boo xam ne day am benn tànt buñ bu ñu nekk noonu daal di tëju foofu da gis jigéen boo xam ne day dem ba ba ba ba war a sëyi fekk du du xam waa koñ bi nan lañ tudd maam du mës a gis yeneen góor yi ci koñ bi du ci wala du xam ñu bëree bëri ci dëkk parce que dañuy dañuy dañuy dëkk ci ruq maanaam loolu moo daan xew loolu moom moo tax ñooñu ñu doon leen doon teg atte maanaam atte yooyu noonu daan aju seeni mbir mais sinon bu fekkente ne jigéen ji boroom xel la xam na xàmmee na alalam la mën na koo jëfandikoo nu mu ko neexee ne nekkul di yàq di def comme ñi ma doon wax sànq ñooñu ajur mu nekk ci jigéen a ah, pour léeg-léeg dox def jël alalam yëpp dugal ko par exemple dem seetaanee ji ko match wala fay ko ay billets yoo xamante ne dafa cher wala dem seetaanee ji ko benn concert maanaam dagg paas euh, jël bi avion jël dangam jël jël bi ay hôtel

xel ji nga xamantene borom subhanahu wa taala daf ko jox gëdd daf ko jox valeur ba pare alal ji nga xamantene mom nit ñi ci li ñuy ngir mëna taxaw di mëna dund dundu normal ngeen diko jël diko ko bàyyeeg ñi nga xamne seen xel dañoo des bu leen def loolu kon euh, naka nonu mu wara nek nekk man al bulu mo mo wara nek xala wala, te bo xol ay bo bu doon dem wabtalul hatta xatta iza balaghu maanaam na ngeen natt ñi nga xamante ne ñoom ñooy njirim yi te njirim xale lay doon wala ñoo d'ailleurs ci la doon waxee aaye boobu noon pour wax ne bu leen leen jox si alal yi na ngeen leen nattu nag voilà ba nga gis ne dëgg-dëgg ki ñii kat euh, mën nañu léegi gérer alal ñoom kese am nañ maturité bi seen age avancé na et cetera xam ñu léegi nu ñuy jëfandikoo ñu doog leen a bàyyee alal kon kooku mooy alkafil kooku loolu moom melo la war a doon ci moom maanaam loolu dafa war a garanti dafa war nek ci mom voilà mu nek ko xamantene tamit kon borom xel mu ñaw lay doon moy rashid mo nga xamantene day xam bu baax nu muy jëfëndiko way alalam ak ci lan la koy jëfëndiko motax koku su ñëwé ne day euh bu boba dañuy fit ci mom quand même mu nekk ne euh, li muy garanti dafa jégué lool nit alalam toll parce que sinon day risquer mom dugg ci benen problème moy nek ko xamne euh ci maxrama maanaam mooy koo xam ne ay borom dañ koy noot maanaam day mujj ku nekk endetté wala sur endetté maanaam loolu wala boog mu mujj nekk perte perte bu loolu moom moo tax buy kuy garanti tamit danga nga war a garanti ci lu yanu maanaa voilà moo tax sopp nañ ko ci booy garanti tam nga garanti ci lu yanu maanaa kon kooku moom mooy alkafil ñaareelu ponk bi mooy al makfuulu lahu ki nga xamante ne mooy ki ñi euh, garanti maanaam mooy ki nga xamante ne euh, moom garanti alal bi ci moom la aju woon loolu bu njëkk bi sa ponk bu njëkk bi ci moom mooy mu nekk koo xamante ne euh, ci ñenn ci borom xam rahmatullah dañu wax ne il mu nekk koo xamante ne ku ñu xam la mais daganu mais mais mais loolu du ci du ci du problème maanaam ki ñuy garantil maanaam ki ñuy garantil c'est-à-dire. maanaam ci suñu exemple bi mooy Demba mooy nga xam ne garanti bi moom lay moom lay profité mooy Demba bokkut ak Samba rek sàmba mooy ki nga xamante ne mooy cosaan mooy cosaan moom lañ doon topp ci cosaan Demba nag laay wax mooy borom alal bi kooku mooy al-makfuulu lahu kooku daa war a nekk ku ñu xam dëgg-dëgg parce que suñ ko xamul identifié wuñ ko en tant que personne morale wala personne physique maanaam ne kii la diw la Samba la wala démb plutôt ci suñu exemple bi démb la tudd wala bo ñu ne banque sangam la wala ñu ne entreprise sangam la ba ñu xam ko ba ñu mën ko identifier loolu foog mu mën a am mais mënul nekk rek koo xamante ne du voilà euh, mënuñoo ne rek am na ku mu ku ku mu ameel bor am na ku ameel bor kenn léegi kooku nag léegi nan nga ko garanti déedéet ñaareel bi ci des moom mooy ci jamono ji nga xamante ne mooy par exemple xanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ cee boole ne. daa war a nekk koo xam ne dañ cee boole ñaari condition mooy condition bu njëkk bi moom mu nekk koo xamante ne daa war a teew ci jamono ji ñuy signé contrat bi maanaam bi ngeen di wax ne euh, man maa garantir diw maanaam mu nekk koo xamante ne dafay teew mais loolu bu nekkut loo xamante ne lu war la comme niñ koy gisee ci xadisu Seydina Abu Qatada bi incha allahu taala beneen bi nga xamante ne moom lañ ciy boole moom mooy euh, ci xanafi yi tamit mooy daa war a nekk ko am xel boo xamante ne xëy na feebaru xel dalu ko wala ñàkkute wér wala yu mel noonu loolu tamit daañ gis ne mën na bañ a nekk charte parce que mbir mi ci alal gi la aju ci àqu alal gi rek la aju moom lañ koy maanaam ci loolu lay dem léegi nag il faut que tamit kooku mu mu mu d'accord ci parce que su ci d'accordul mbir mi du dox tey par exemple Demba bokkut ak xawaanaat xawaanaat yéen a ngi fàttaliku biñ koy gis mooy euh, batale maanaam batale ob loolu obligé wul mais garantie moom ki ki ñuy ki ñuy batale xam nga moom obligé wul mu nangu mais alors que ki ñuy garantie kooku daa dafa war a mën a nangu euh, ki ñetteelu ponk bi moom mooy almakfuulu la anhu almakfuulu anhu moom mooy su suñu mooy ki ñuy garantil maanaam mooy nga xam ne moom lañ jëlee ga a euh, charge bi responsabilité bi tegoo ko maanaam parce que boobu su amee ñun ñaar ñëpp maanaam muuru ak sàmm yëpp dañuy yorandoo garantie bi en même dañuy yorandoo responsabilité bi en même temps moo tax mooy dammu zimmatin ila zimma wala dammu waltizaamu zimmatin ila zimma mooy dañuy boole ba pare takkoo maanaam ga benn responsabilité day tegu ci ñaar en même temps day ci ñaar en parce que li tax muy tegu ci maanaam moom mooy day tegu ci Samba tegu ci Moodu ce qui veut dire que ni Demba mën na ko laaj Euh, bu bu bu heure laajte jotee bu ko laajee euh, da koy mën a laaj Samba mën koo laaj Moodu su sàmba bañee su Samba euh, ne yoru ñu xam ne ki yoru Moodu moom faaw day fay waaw léegi nag kon Samba moom nga xamante ne nag moom mooy cosaan bi moom moom mooy ndey mbill gi lépp ci moom la jóge kooku dafa am loo xamante ne moom la ñuy sàkk ci moom mooy mooy charte yi ci moom sàrt bu njëkk bi moom mooy ne sax na ci moom ne am na bor wala boog lu tax ñu war koo garantir maanaam dafa sax ci jëmmum loolu loolu dafa dafa nekk loo xam dafa taxoo moom ñaareelu mbir bi moom mooy. xanafiye euh, yi rahmatullahi am dañoo jàpp ne foog mu nekk koo xam ne ku ñu xam la loolu nag comme niñ koy gisee Seydina Abu xadis Abu xadis Seydina Abu Qatada bi tamit radiyallahu anhu yel manam aju aajowul ñu xam ko wala mais dal li ci am solo mom moy mu woor ni mom mo amel na bor waaji wala bok am luñ koy topé ba tax ñu wara soxla ñu ñu indi ko ci garantie bi euh, léegi loolu moo tax moom gër mom mu d'accord ci ñu garantie ko loolu du farak manam loolu du charte ci mom xam nga lu tax al moom lañ moom maanaam mooy al makfuulu anhu moom dañ koy tamit al madmuunu anhu maanaam lu tax parce que fay giñ ko war fayal bor sans ndigalam day dagal c'est-à-dire que tey Moodu bu ñëwoon daa di yëg ne Samba yorel na Demba 3 millions Moodu jël 3 millions fayal ko Demba jeex na day daal di doon loolu kon moom Moodu su ñëwee garanti ci kanamu euh, euh, euh, Demba ñu signé. contrat wala pacte buy wane ne moom moo garanti Demba moom Demba d'accord ak mu ñàkk a d'accord ci yam képp voilà voilà euh, kon euh, loolu moom moo tax euh, comme Seydina Abu Qatada radiyallahu anhu comme niñ ko gisee woon ci moom din ci xadis Seydina Salamata ibn al-Akwa bi radiyallahu anhu naka noonu noonu lañ koy gisee incha allah ci xadisam bi tamit. ah moom bu mu ne bu mu ne ah alayya daynuhu wa salli alayhi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maanaam maa koy gàddul borom léegi yow jullee jullee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen euh, ñee ñeenteelu ponk bi nag te moom mooy almakfuulu bihi maanaam moom mooy alal ji nga xamante ne moom lañu ñu war a garanti wala boog li nga xam ne mooy moom mooy indi gi ñu war a indi nit ki kooku dafa am luñ ci xeextal bu njëkk bi biñ sartal ci moom mooy mu nekk loo xamante ne maqduru taslim la maanaam mooy possible na ñu mën koo teg voilà par exemple koo xamante ne euh, dañ ko dañ ko garanti mais mënuñu ko indi maanaam yow Moodu Moodu ne Samba Demba gaa yoreel na la yoreel na la nangam mais man danaa ko indi te Demba par exemple maanaam da da da xamuñu fu mu nekk maanaam Moodu xamul fan la Demba nekk fat no maanaam Samba. voilà Modou Nes Demba Samba dangaa la ko indi te mu Samba ci bopom Samba boobu ñu wara a indi xamuñu fu mu ne daa réer loolu du mën nekk maanaam daa bokk ci moom moy ñu mën ko indi benen bi ci dess tamit moy dafa bok ci alal ji mu possible ñu mën ko ñu mën ko tek teg maanaam fay wala parce que sinon euh, par exemple mais lolu souvent ci ayne lay doon wala ci nafs d'accord ci ayinu mooy jëm ji jëmmi mbir jëmmi alal. par exemple bu dee alal jooju dafa lakkoon wala yooyu noonu loolu ken mënu ko indiwaat voilà loolu moom lu ko nuroog yooyu almisli rek lañ mën a indi mooy lu ko nuroog dem bu dee benn oto la ñu ne Peugeot 508 euh, xaw ma année 2018 et cetera bu boobaa ñu dem jënd oto bu mel noonu indi loolu lañ mën mais jëmmi mbir mi ci boppam du mën a ne. Euh, beneen bi ci des moom mooy mu nekk loo xamante ne xaqun saabitun alal asil la maanaam mu nekk loo xamante ne. àq la xam ne sax na mm-hmm. ci ki ñuy toppee mbir mi ci cosaan voilà maanaam loo xamante ne euh, gis nañ ni euh, toppul mbir mi ci cosaan loolu du du mën a nekk mooy comme par exemple tey comme que yow da nga nar a ami bor bor boo xamante ne amagoo ko mënuma la cee garantir bon diw voilà de façon moom lépp lu mu mës a waaw moom bor a am baax na dina baax déedéet loolu du mën a nekk beneen bi tamit moom mooy mu nekk loo xamante ne euh, bor la boo xamante ne mi ngi fi ba ba tey bor boo xam ne mi ngi fi ba tey maanaam bor boo xamante ne baaloon nañ la ko ba pare wala fayoon nga ko ba pare mënuñu la koo garantir loolu mënta nekk ba noppi nag mu am beneen boo xamante ne Shafi'i rahmatullah dañ ko ci yokk mooy bor bi ñu xam nan la toll parce que mënuñoo garantir loo xamante ne xamuñu nu ñu nu ñu nu ñu nu mu toll léegi nag. par contre loolu jumhurul ulama te moom mooy xanafiye yi ak maalikee ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom nee nañ noo dagan na possible na d'ailleurs comme niñ ni mu nekk ci xadis Seydina Abu Qatada bi radiyallahu am maanaam maa ko yoreel borom mais boobu ñoom dañuy wax ne no bor boobu xamoon nañ ñu toll mais ak mu ci mënti xew mooy bor bi moom loolu mooy li gën mooy ñu xam fi nu mu toll parce que mënoo ñëw di garanti ko loo xamante ne xamoo nu mu toll parce que bu boobaa wóorul ne yow ci am nga alal di tollu noonu voilà ak it lum la mën a juróom juróomeelu ponk bi nag moom mooy as-siqa comme ni ñu ko gisoon léegi mooy nu contrat bi wax ji nan lañ ko war a tëggee te moom mooy al euh, ijaab wal qabul moo ci war a am comme Hanafi rahmatullah ñoom dañ ko cee chartal euh, waaye ñeneen ñi rahmatullah alayhim ñoom chartaluñ ko ci voilà ñoom liñ ci chartal rek moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kii garanti d'accord mën a nangu ko mooy almakfuulu lahu mooy ki nga xamante ne moom mooy ci suñu niral bi maanaam Demba mi nga xam ne moom moom alal ji ci cosaan moom la Samba yoreel maanaam Demba boobu daal di koy eh, eh, daal di ga garantir voilà euh, kon euh, loolu euh, am na nag ñu jàpp ne même Demba boobu sax maanaam obligé wuñu mu nangu te comme mais xanafi yi moom rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam faw dem ba moomu euh, nangu euh, siixa boobu nag dafa am yeneen euh, charte yoo xamante ne moom lañ ci chartal moom mooy il faut mu nekk ci baat maanaam boo xam ne mooy maanaam an yakuna bi lafdin yadullu alal alal iltizami voilà maanaam mu nekk baat boo xamante ne day tegtale ne gàlloo nga mbir mi baat bi mën na nekk wax ju leer comme mën na nekk wax juñu juñu comme euh, kii def ma daf laa yara nangam gàlloo naa ko wala boog maa ko yana wala boog euh, amul problème comme genre non non bàyyi ko mu dem amul problème euh, dinaa ko indi bis dinaa ko indi wala bok dina non non garaawul dina teew dina teew maanaam nga xam ne da ngaa junj ne loolu garanti nga ko yaa ko garanti aw non non baax na baax na dinañ dina ñëw incha allah man Euh, sinon man ak après ñu toppatoo ko sinon man ak yow ñu toppatoo ko comme genre wax yooyu nga xam te ne yëpp dañ ciy junjaale loolu mu leer ak mu bañ leer ñoo ci voilà euh, beneen charte bi tamit moom mooy contrat bi dañ ko war a bu lu ñu bind la wala boog lu ñuy wax dañ ko war a waxee noo xamante ne du am buñ ko aj mooy adamu taqli euh, ta'liq ala shart maanaam waruñu ko aj ci shart mooy lu ñu loolu la ñuy wax tamit at at tanjiz àqli maanaam mooy euh, dañ ko war a boyal bàyyi ko noonu voilà maanaam mënu koo sàttal ci ne euh, waaw man maa la garantir euh, bu fekkente ne sama salaire bi ñëw na wala bu fekkente ne li may xaar yegsi na wala boog bu Moodu ak bu bu bu par exemple Ibra ñëwee mm, voilà wala bu Ibra non yooyu mënoo ko ak ci leneen dinaa la fay dinaa la fay. maa ko garanti bu ñëwul man dinaa fay bula la fayul man dinaa fay bu indiwul mbir mi man dinaa la ko indil wala dinaa la indil dinaa la rembourser njëgam maanaam loolu daa war a leeree noonu mais warut a nekk ne man tamit charte bi ma koy tëralal ma teg ko ci beneen charte maanaam Moodu munul teg mbir mi ci beneen charte euh, voilà beneen bi ci des tamit te lu mat a bàyyi xel la. Euh, pour yenn borom xam a yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, waruñu maanaam parce que xam nga kafaala en général fi muy amee mooy garanti bi en général fan lay amee mooy tey yow su dee yow da nga ma soxla da maanaam su dee da ngay ñëw war a fayeeku nit ki moment bi nga xam ne moom nga war a fayeeku ba pare waa ji yorul lu mu fayee moment boobu ci la garantie bi di amee no bàyyi ko dinaa la ko garantie dinaa ko indi. bu dee ci kafaalat euh, nafs la moom da ngaa war a indi nit ci maanaam dañ ko war a utal jamono bu précis maanaam soit ñu ne bis sàngam wala boog diggante bis sàngam ak bis sàngam jamono sàngam wala yooyu dinaa ko indi mais bu dee ci alal la tamit da nga koy indi ci ne ah euh, bu buñ mën nañ mën teg ci dat sàngam am na nag borom xam yu jàpp ne waruñu ko wutal jamono ci alal bu dee alal la parce lu tax parce que li am solo rek mooy fay kon waruñu ko wutal jamono mais xam ngeen ni loolu euh, soo ko defee am na ñoo xam ne du la fay mukk tout simplement euh, léegi mu am tamit ñu jeexalee ci benn point bu am solo euh, wala mooy mooy kafaalatu maanaam kafaala dafa am fu muy yem maanaam dafa am ci loo xamante ne loolu temps maanaam délai quoi délai dafa am délai loo xamante ne bu kafaala bi manam moy garantie bi lolo tax garantie bi jeex lolo nak mën nañ ko budé ci al kafalatu bil bil mal la moy garantie ci alal lolo ci ñaari mbir lay amé bu ñëkk bi mom moy al asil moy ci suñu niral gi moy samba fay fay na demba samba bu fayé demba moodu mi ko garanti won garanti bi day jeex contrat bi day jeex wala benen bi ci des mom moy Eh, ak maanaam al ibra am ibra moom mooy bàyyi maye maanaam moo la boog daal ne wala léegi garaawul garaawul quoi bàyyi naa moom wala boog comme par exemple may na ko voilà su fekkente ne ki nga xam ne moom moo moom mooy eh, wala boog ki nga xamante ne moom mooy kii garanti jël alal di joxe ko fay kii garanti tamit fay maanaam yooyu yëpp bu ci am. garantie bi day day day day jeex euh, donte am na yeneen masala yoo xamante ne euh, tamit euh, dinañ ko gis te moom mooy ci wàllu alkafalatu bil nafsi même bu fekkente ne am na li yenn lien ak ak kafalatu bil mal mais kafalatu bil nafsi mooy ci bakkan bi dafa am beneen garantie bu ci aju beneen mbir bu ci aju mooy nit ki maanaam suñ ko indee ba teg ko ne waajaa ngi indi nañ ko ci ci juuru acte bi wala yu mel noonu jeex na mat wala boog ki boo ki amee woon àqam te mooy Demba nee na baal na Samba garaawatul léegi jeex na bu boobaa kafaala bi tamit day day day day jeex voilà euh, kon mais bu boobaa foofu day jeexe mais wala ki nga xamante ne moom mooy boroom alal bi maanaam mooy par exemple muudu bi nga xam ne moo garanti woon moom fay na Samba fay na Demba léegi nag bu boobaa digganteem ak Samba day des du jeex ba tey mais garantie bi mooy jeex fële euh, ñetteel bi maanaam beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy beneen charte bi beneen bi moom mooy euh, ki ñuy garanti génn àdduna voilà voilà. maanaam euh, Samba génn àdduna duñ ne Demba foog nga indi Samba parce que mënatu la ne wala boog Samba riir kenn xamatul fu ne ñu àttee àtte téye nañ Samba boobaa dañ koy téye voilà bu heure teewal Samba jotee Moodu Moodu indiwul Samba dañuy téye Moodu soit bu fay bu dee jëm wala wala boog ñu téye ko ba bañ xam ne moom mënta mënta indiwaat Samba. parce que Samba dafa daw wala Samba dafa lii bu wala dafa nangu wut joxe bu boobaa ñu bàyyi mais sinon bu kii ah sinon Moodu kenn du ko bàyyi mu dem moom it maanaam moom duñ ko bàyyi mu dem de xanaa mu fay bu dee lu ñu fay la bu dee àtte nag buñ ko war a tegal moom la ñuy def mandat de dépôt Moodu la ñuy def mandat de dépôt en attendant ñu xool ndax Samba possible nañu mën koo gis waa wala loolu boobaa noonu lay dem bu fekkente ne nag. par exemple affaire bi dafa jégué par exemple euh c'est pas parce que modou mën nañu fay modou mën nañu ñu nako modou Moodu fayal Moodu fay parce que Samba Samba la gisul manam modou dal néwon na dina indi Samba bi sàngam modou gisunu Samba ko euh, bon légui nan lan moy xew modou da nan ok d'accord légui dañ nan yow légui kon modou fayal Demba ok suko fayé ba paré Samba feeñ problème bi mom ak modou la. Moodu Samba la mais en aucun cas duñ ne bon kon sàmba delloo comme comme Demba delloowaata Moodu xaalis bi léegi Samba fay la déedéet léegi loolu moom day day day day jeex ba mu des xanaa suñu demee ba mu yàgg ba ñu gis ne ndekete euh, ndekete sàmba daa dee woon wala sàmba dafa réer wala dafa daw làqatu ju feneen exilé wu et cetera ak yu mel noonu boobaa loolu moom boobaa Moodu xanaa loolu Moodu moom du perte. voilà kon euh, yooyu yooyu ay mbir la yoo xamante ne euh, yu mat a bàyyi xel la léegi nag mu am loo xamante ne mat naa bàyyi xel aussi moom mooy su fekkente ne ci côté xadd yi la xuduut yi loolu du ci dox maanaam moom mooy tey buñ ne euh, kii dañ ko war a atte parce que dañ ko war a jam parce que daa am fu mu jam wala boog dañ koy rey parce que daa ku mu rey wala yooyu noonu loolu kenn mënu cee def kafaala waaw loolu moom loolu tamit euh, lu mat a la euh, kon euh, bu dee ci bon yaakaar naa ni globalement bon garantie bi tam mën na jóge ci demande de garantie bi maanaam mën na jóge tamit ci Samba Samba mën na ni Moodu garantil ma loolu da mën naa ne comme si Moodu mën na ñëw wax maanaam garanti aussi euh, euh, facilement voilà maanaam daal di ñëw quoi léegi mbir mi bu teggee ko comme niñ ko gisee Moodu bon am na am na nu muy teggee ko Moodu am na nu muy teggee ko Samba ala kulli xaalin euh, yooyu maanaam ay mbir la yoo xam te ne lu mat a bàyyi xel léegi nañ ko des beneen xam te ne xam naa foofu la ñuy tëjee incha allah taala wala boo ko yeneen ñaari masala euh, mooy bu njëkk bi moom mooy contrat yi suñu bëri maanaam moom mooy tey ay garant yu bëri maanaam tey bu ñu demandé ay garant yu bëri parce que parfois Demba mën na ni benn Moodu yow rek du yow bu ko boo dafa Moodu daal di indi Ibra ah daal di indi Lamine daal di indi eh, indi ñu bëri quoi bu boobaa ñoom ñëpp ñu garanti bu fekkente kenn ku ci nekk dangaa ñëw indi sa garantie bopp bu boobaa trois millions yi nga xamante ne moom la ñu fay la ku nekk di gàddu maanaam sa qui veut ni Demba mën na koo kenn ku nekk ci ñoom ñi waaye su fekkente ne ñoom ñëpp ñoo signé doo contrat bi ci même jamono ji wala boog ñoo waxandoo ci même jamono ji ñun ñoo bokk garantie boobaa kenn ku ci dañ koy xaajale kenn ku ci nekk ci cëram maanaam bu ñuy laajte du ñu laaj par exemple boobaa. Moodu du fay 3 millions ah bu ak euh, Ibra ak Lamine ñoom ñett ñoo ñëw bu boobaa 3 millions yi dañ koy def million million million c'est-à-dire que Moodu moom million rek lay fay après nag ñu wax saa yi ak ñoom Lamine ak ñoom ñoom ku nekk fay million moom rek voilà donc loolu mu nekk tamit beneen masala boo xamante ne euh, euh, bu. Eh, bu bu mat a bàyyi xel la bi ci des tamit moom mooy eh, que eh, ki nga xamante ne moom mooy mooy Demba am droit laaj Samba comme ni mu amee droit laaj Moodu voilà voilà donc imam Malik rahmatullah alayhi fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne Samba rek la ñu mën a laaj maanaam Moodu balaa ñu koo laaj il faut que Samba bañ a fay voilà mais loolu euh, beneen tamit boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la ci wàllu kooku moom mooy euh, kii ki nga xamante ne moom mooy sàmm maanaam euh, moodu maanaam su fekkente ne par exemple Samba maanaam dafa wax ne moom maanaam ki nga xam ne moom mooy moodu plutôt bu fay na Samba fay na Demba alalam fay na ko trois millions ba pare léegi bu boobaa dañuy dem laaj ji dem dañuy laaj Demba obligé obligatoirement su dee Demba nee na d'accord effectivement Moodu jël na Moodu c'est bon Moodu fay na ma léegi bu boobaa euh, bor bi day def diggante Samba ak ak Moodu su fekkente ne nag nee na non non non bor bi non saa fayu ma dara ah. bor bi day des day des ba tey dañuy xool.